bon li ñu mën a jàpp mooy projet bi dafa di projet bu am solo pour la ville de Thiès eh, mën naa wax ni eh, ginnaaw ba nga xam ne ñaari dëkk yi lëkkaloo nañu muy eh, dëkk muy ville de Thiès ak ville de Solingen pour maanaam sellal jaww ji xeex maanaam coppite wu climat bi ci seen waxtaan dem nañu ba tënk le lu toll ni kii ñaar fukki mesure ak juróom-ñaar ci biir ñaar fukki mesure ak juróom-ñaar yooyu jël tànn nañ ci benn boo xam ne moom moo nga xam ne moo jëm ci maanaam aar àll bi donc euh, ñu ngi koy euh, déroulé au niveau du plateau de Thiès moom la ñuy wax restauration réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès alors liggéey boobu nag ñaari pàcc la am na pàcc bu njëkk bi ci biir dëkk bi la maanaam mooy fexe ba garab dellu si biir dëkk bi parce que euh, garab am na gaa moom ci biir Thiès mais dañu gis ne wàññeeku na lu bari te garab dafa am solo maanaam ci xeexu climat bi parce que bu ñu réeree mbir garab euh, teenu carbone la parce que ñun tey oxygène la ñu soxla bu ñu nooy dañu soxla oxygène mais gaz carbonique bi dañu koy génne mais gaz carbonique boobu ñuy génne garab yi ñoo koy téye donc garab boo góor également day bàyyi gaz carbonique bi dem ci jaww ji te gaz carbonique boobu nag di dajaloo ci jaww ji mooy indi maanaam euh, tàngaay bu métti bi donc dañuy fexe ba comme ci biir dëkk bi la euh, lu bëri di xew oto yaa ngi fii moto yaa ngi fii moteur yaa ngi fi nit ñaa ngi fii façon xeetu liggéey bu nekk mi ngi fi mais loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mooy changer climat bi donc bu fekkee ne garab yi dëkk bu la gën a bëri bari garab rek dina xëy na dina la euh, atténuer sa sa climat donc euh, liggéey bi ñu jël dina dem ci maanaam dellu si garab dina dem ci aussi ci aménager espace vert yi te liggéey boobu tamit dañ koy bokk def ak nit ñi maanaam dëkkandoo yi ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wetu espace yooyu euh, maanaam ASC yi ñu ci dëkk bi ñoom daañu waxtaan ak ñoom lëkkaloo ñoom ak service technique bu mairie pour jéem a seet liggéey boobu nañ koy defee parce que la bu loolu weesoo beneen pàcc bi mooy ci àll bi maanaam li ñuy wax plateau de cees gis nañ ne nawet bu jot cees euh, day bari mbënd ndox mi dafay wàcc si te loolu li ko mooy forêt yi nga xam ne ñoo nekk ci biir plateau bi yëpp léegi forêt bi dafa yàqu parce que gor nañ ko la euh, daay jaar ne fa euh, dindi garab yi lu ci bëri yàqu na te loolu tamit tax na ba nga xam ne foore bi jouetul rôle am donc dañuy fexe ba liggéey ci biir forêt plateau boobu pour seet naka la ñuy fexe ba wàññi doole ndox mi ñëw ci biir dëkk bi fexe ba ndox mi aussi mën a infiltrer pour mën a recharger nappe bi donc projet boobu nag dina dox ci diiru ñetti at alors te ñetti at yooyu tamit ci la ñuy fexe ba def ñaari euh, xeetu liggéeyoo bon liggéey yooyu nag duñ ko def rek ñun kenn comme ni ma ko waxee dafa fekkoon déjà bëgg-bëggu euh, waa kaw gi la woon parce que bëggoon nañu suñu jàppale leen amuñu na ay pexe yàlla def nag projet bi ñëw pour mën a jàppale leen donc dañuy lëkkaloo ak ñoom liggéey ñoom pour mën a fexe xeex loolu Euh, projet bi 300 euh, 000 euros la donc muy 200 millions de francs pour euh, ñetti at. donc waroon na tàmbali depuis janvier donc ça veut dire que fi mu nekk ne amoon nañu retard wu juróom-benni mais retard boobu tamit li indi mooy xam nga rek procédure yi. maanaam euh, signature contrat yi parce que bu ñu fàtte ni que ñun ñoo ko Allemagne ñoo doon liggéey te Allemagne xam nga dégguñu dégguñu français donc lépp lu ñu def comme document foog ñu traduire ko en allemand ñu def ci en allemand foog ñu traduire ko donc ce qui fait que tardement bi pratiquement ci loolu la jógee te aussi contrat la boo xam ne dafa gouvernement fédéral moo ko joxe te dafa ne lépp lu ñu def aussi nañ ko na nañ nañ ko def ci selon leur procédure donc seen conseil juridique ak waa euh, mairie ñoo toog waxtaan ba nga xam ne nag euh, ba ñu ba ñu ba tënk loolu mu nekk contrat boobu donc euh, loolu tamit mu nekk loo xam ne boo moo xawoon tradel kii bi ba nga xam ne dinañ jéem a seet maintenant ci juróom benn weer yi des naka la ñuy fexe ak ñaari at yu des naka la ñuy fexe ba dabu loolu mais en projet bi ñetti at lay durer donc 2016 la commencé pour jeex en 2018 te comme ni nga ko waxee sànq nag projet test la bu fekkee ne projet bi dox na am na résultat 27 26 mesures yi ci des maintenant am naa yaakaar daañu am financement d'ailleurs mën naa wax sax ne am na benn projet boo xam ne tënk euh, euh, tëggoon nañ ko ci ba ñuy tëgg bi projet bu 50 000 euros la mais ñoom dañ ne kooku duñ ko financé gum dañuy xaar d'abord ba kii ba xam nu muy demee bu loolu bu fekkee ne lii aw na yoon ci première année bi bon man na maanaam ñu déclenché financement boobu donc c'est-à-dire que financement yu bëri mën nañu di ah, ba nga xam ne tey euh, je crois que suñu xel war na dal parce que mën naa ne Thiès am na li ñuy wax le plan climat territorial parce que loolu tamit lu am solo la parce que plan climat territorial mooy que xam nga foo jëm ci mbirum xeexu euh, maanaam soppitewu climat bi parce que bu ñu fàtte ni que ba ñuy dem euh, fële nu mu tëti euh, conférence bi amoon Paris ah, COP COP 21 bi de réew yëpp ñu fa teewoon dañu jël engagement ne daañu fexe ba jaww ji tàngaay bi daañu daañu fexe ba du àgg 2 degré donc réew bi ci nag daf jël engagement donc Thiès tamit bëgg na moom tamit def ci loxoom jàppale Sénégal pour que engagement boobu mu jël vis-à-vis de à Paris pour mën ko respecter Euh, monsieur le wax na ne problème mbali di nekk ci route de est-ce que yooyu euh, day bokkaale si liggéey bi ak peut exemple bi mu ne 14 millions yi ñu prévoiroon foofu mais ñu leen si euh, décharge bi ci Fandène la bokk est-ce que yooyu da ngeen ci tenir en compte. waaw loolu mu doon wax day bokkoon na ci projet bi parce que comme sànq ba may expliquer ne woon naa dañu bëgg a si garab ci biir dëkk bi. parce que bu ngeen xoolee benn exemple laa joxe rek niim yi bu ngeen bu ngeen xoolee rek def attention gis nga niim yi ci bëri léegi amatul doom. mais loolu li ki mooy bon c'est vrai que jur gi pël lu ci bëri dañu ñëw di di di di di di di di di leen gor et comme ñu ngi leen di gor na duñu duñu fructifier et comme duñu fructifier du am du am fruit donc il y a un problème de régénération qui va se poser alors pour l'axe la Mbour Sindia bokkoon na ci projet bi donc mbalit mi foofu ñun on avait prévu réaliser fa li ñuy wax forêt routière maanaam plantation boo xam ne mooy encadrer tali bi ci de de part et d'autre de la route mais sur deux deux deux lignes de quatre sur de de de 4 euh, sur 4 ligne bu ci nekk diggante garab ak morom dina def 4 mètres ligne bu ci moromam dina def 4 euh, mètres donc mu war a nekk ñetti lignes yoo xam ne ñooy seq euh, tali bi li ko dalee buntu cees boobu ba sur à peu près 1 kilomètre bon tasanteeg nag ñoom tamit ñu woon ko def pour mën a làq loolu donc fan yii la nag ma waxtaan ceeg le maire ne bon mur bi jaru ko bon mën nañu jéem a seet naka la ñuy def ces plantations là mooy gën a rafet. parce que mur bi aussi d' dina baax naka fermé mais ça veut dire que comme foofu tamit du suñu domaine te déjà litige am na mais bu ñu defee garab yi mais du du du kenn kenn du ko contesté parce que garab yi day gën a protéger yoon wi da koy da koy da koy dëgëral mais aussi dina bokk ci li nga xam ne mooy rafetal euh, yoon wi. merci